bonjour sama gars yi na ngeen def j'espère que yéen a ngi si jàmm alors man maa ngi si jàmm dal leen jàmm seen seen like mobile votre seen de technologie tey ñu andi leen beneen astuce bi jëm si naka ngay defaree sa données mobile ñu bàyyi leen ginnaaw publicité bi ñu ñëwaat. like mobile votre chaîne de technologie n'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo sama gars yi dal leen seen seen like mobile votre chaîne de technologie. ñi lay ñaan ginnaaw loolu nga bës si bouton abonné bi euh, aimé bi partagé ko ngir ñu gën a mën a ay astuces te astuce bi ñu la indil mooy naka ngay def ba régler sa problème mu données mobile. incha allah bëgg nañ ko def ci opérateur yëpp euh, euh, mais dañ ko bëggee diviser Expresso prix Pro mobile tey nag li leen indil mooy naka ngay régler sa donnée mobile orange pour nga régler sa donnée mobile orange léegi dañuy xool paramètre voilà léegi ñu cliquer paramètre léegi bu ñu cliquer permettre fii lay dugal euh, moo di le réseau et internet euh, indi la appareil connecté mais yooyu yëpp interréseau la lan lan ngay xool mooy fi mu la bindal réseau et internet léegi internet voilà léegi bu ñu cliquer réseau et mu indi la fii fan ngay xool mooy fi mu la bindal réseau mobile voilà léegi ñu cliquer réseau mobile voilà léegi bu ñu cliquer réseau mobile da lay indil deux opérateurs comme que ñu doon yor Free ak euh, Free ak Orange léegi. Euh, comme que données mobile orange lañ bëgg régler tey léegi dañuy xool fi muy bindal nom de point d'accès boo xool suuf da ko fa gis no des points d'accès voilà léegi ñu cliquer nom de point d'accès léegi bu dee téléphone bi dañ ko dañ koy doog a configurer euh, fii la lay comme nii la la ko indilee léegi comme que ñu dañoo réglé léegi dañ ko supprimer pour mën leen ko woon wala léegi comme nii la ko indilee bu dee dañ koy doog a configurer léegi pour nga reglee say données mobile nan nga war a def léegi da ngay xool boo xoolee si si kaw am na fu mu leen dil trois points si à côté moo ni lu mel ne feles mel ne plus léegi pour nga régler say données mobile léegi da ngay cliquer fi mu la indil plus bi voilà léegi buñ cliquer ñu cliquer plus bi voilà léegi buñ cliquer plus la lay dugal moo ni la non non défini APN non défini léegi pour nga régler say données mobile léegi da ngay cliquer fi mu la euh, fi mu la bindal première bi ngay cliquer non non défini voilà léegi bi ñu cliquer non défini léegi nan nga nan nga fi def laaj def ay no sant laaj def fi dara léegi tur opérateur bi nga bëgg bi nga bëgg a moom nga fi def comme que orange lañu bëgg a configurer tey léegi dañuy def orange voilà léegi ñu def orange orange voilà léegi bu ñu defee orange léegi dañuy ok voilà bu bu nekkee léegi boobu jàll na léegi mu des ban fi bindal APN non défini léegi ñu cliquer APN non defini bi voilà bu ñu cliquer APN non défini léegi nan ngay def comme que tur opérateur bi nga njëkkoon a def orange la léegi da ngay defaat même chose bi orange léegi ñu defaat orange orange voilà léegi boo def orange wala lan ngay def mooy tur dëkk bi nga nekk. comme que ñun Sénégal lañ nekk léegi dañuy def Sénégal léegi ñu def Sénégal voilà orange Sénégal voilà léegi bu def Sénégal léegi ñu ok waaw léegi bu ok léegi lan nga def bul génn ndax prégo léegi da ngay xool si kaw trois points yi am na fu mu indil trois points léegi ñu cliquer trois points yi am na téléphone yoo xam ne enregistré la indil. Euh, bi am yoo xam sauvegarde léegi yëpp si la même chose léegi dañuy cliquer sauvegarde bés clic baan enregistré wala sauvegarde bés lañu buñ cliquer sauvegarde comme que si enregistré nañ ko euh, léegi ñu génn un pas voilà léegi buñ cliquer un pas comme données yi fa mu taxaw mais léegi comme que réglé nañ suñu données mobile ba pare léegi dañ koy cliquer fi comme dañ cliquer suñ données mobile yi nga xam ne réglé nañ ko ba pare muy Orange Sénégal léegi ñuy tapé ko si Orange Sénégal voilà léegi buñ tapé Orange Sénégal bul bës bouton digg bul bës bi avancé derrière bi ngay lañ euh, lañ bës voilà boo ñëwaatee bës menu bi léegi. voilà comme que defar nañ suñ données mobile ba pare léegi dañuy xool boo xam ñëw na wala ñëwul léegi dañuy wàcc suñ barre de menu bi voilà léegi ñu tàll suñ données mobile voilà attends voilà automatiquement buñ ko taalee da ngay gis ne données mobile bi may commencé affiché maanaam ñëw na. Euh, mbokk yi noonu rek lay activer données mobile orange beneen yoon dinañ leen ñëwal si ni régler Free Expresso pour mobile ñu lay ñaan nga bul fàtte bés bouton abonné bi aimé vidéo bi ko ngir gën mën a indi ay astuces merci. Like mobile votre chaîne de technologie n'oubliez pas de vous abonner et la vidéo merci.